waaye li mu tudd yow Wolof. waaw Wolof ngay jëli. xam ne kii deewul. am Alpha TV la yor. si nga koy si ngay prête yow. si ngay bàyyi dal nit waxuma ki dalal ci ah. nit. yow xam nga tey yow laa fa ñëw rek ah? moo tax. moo tax dem naa xewlu baag fépp même bàjjen dem essayé ko bàjjen nag maama ci. tout wax naa leen nee leen dal ci kawam de ci ngoon laa waroon def kii. ma dal ci man dara ci man dootul dara ci. lu leer laa dëggal. par kii moom di nga xam ne maa histoire. xam nga fi man te jigéen ñi lay man dañ ma xamul sax. <coughs> rek ci kay rek pour ñu lay man. fay ma ko mel ah bul gi jeex na. am ku ne ko am ku ne ko am ku ne waaye noppi danañ ko xamul. bul gi yoon kay. danañ ko xamul bul gi yoon kay mosuma ko. waaw ah, kay. bul gi yoon maa ngi moom xewuñ niroo yi. xabal ma la xabal ma la. damay àgg si xabal ma la xabal ma la. non non bii mënu ko bee laa. Eh, bee kii wul bee nekkoon. bala ma ne. nee na may teg diir. non non soo laa ci jël. ma ne dugal barki bee mul kaay.